ut bi ñu génn bi nga xamante ni dafa taw taw bu bëri ci ndakaaru waaye ci yeneen gox yu bëri ci senegal te tuubaa tamit mu taw fi ay yoon yoon taw bu bëri boo xamante ni buñ ko xaymaa li mu tawagul ren buñ ko nattee diggam ak daaw dafa mel ni fii ñu toll ren moo gën a bëri ndox mi fi wàcc buñ ko nattee diggam ak daaw waaye gis nañ ni ci am na ay bërëb yu bëri yoo xamante ni ndox mi wàññeeku na fa ndax am na liggéey bu am solo boo xamante ni jot nañ ko fa def li njëkk ci liggéey bi mooy daaw biñ fi ñëwee ci wàllu plan ORSEC bi gisoon nañ ni ni Touba euh, organisé woo ci wàllu assainissement ndox mi yëpp day dem Kër Ñang waaye bu yegsee Kër Ñang day jàll Daaru Rahman lenn li leneen li ñëw fii ñu toll fii ñu taxaw nii muy Pofdy ñu gis ni bassin bi dafa mel ni dem na ba li mu attanoon ci yanu ko ci wàllu ndox bu fa war a teer euh, yegg yegg na ca euh, capacité ba tax na da daan rembet bu rembetee day walangaan dugg ci kër yi ba nangu ay kër yu bëri léegi nag bi ñu ñëwee daaw ci travaux d'urgence yi ñu gis ni dañu war a yokk capacité de pompage bi ndax 2800 mètres cubes heure la doon pompé ñu ni kon bi ñu waxtaanee ak techniciens yi ñu ni dañ ko war a yokk moo taxoon ñu yokk ci 2100 mètres cubes ñu ni waaye loolu doyul ndax boo yokkee 2100 mètres cubes ci lu doon génn 2800 mètres cubes mënul jaar ci tuyau ya fa nekkoon looloo waral ñu yokkoon ci yeneen ñaari tuyau yoo xamante ni gis ngeen tuyau yi léegi boo leen xoolee ci bassin bi di ngeen gis tuyau yooyu laata màggal gi tàmbale naa xel li ba loolu tax mu soulagé woon ay population yu bëri ren bi ñu fi ñëwaatee ñu gis ni loolu ñu fi defoon daaw am na fi njeexital ci Kër Ñang waaye tamit am na njeexital diggante Ndaamaatu ak Ngélému ba waa Ngiraaneen am na taw féex gum leen jural ba ndox mi doon walangaan di jógee Ngélému ak Ndaamaatu yeggatul foofu loolu nag euh, moom mooy plan saa yoo dem saa yu ñu demee ba xam euh, toll ci jamono joo xamante ni euh, dafa am warugar ci état bi ngir ñu gën a mën a baral liggéey bi gën a mën a boole suñu doole yi service yi fu ñu mënti bokk ngir ñëw ci ministère de l'intérieur ngir ñu gaawal ko fa mën a oyofal dundinu. askan wi ci ni nga xamee jafe-jafe yi ñu jànkonteel moo tax président de la république di santaane ñu déclencher plan Orsec du leneen lu dul loolu loolu nag lépp urgence la plan Orsec bu ñëwee li ñu war a def mooy li ñu doon def ci benn waxtu ñu def ko ci fanweeri minute wala ci fukki minute ak juróom lu ñu doon def ku nekk nekk sa côté ministère bi euh, dina wëyal gis nga sama naataango muy Samba Ndiobène Ka ma koy nuyu mi ngi jugee maatam fi mu ne defi foon liggéey bu am solo ndaxte ni amee population yoo xamante ni boo demee dakaar dañu nekk ci coono euh, parce que li koy waral mooy ndox dafa dugg ci seen biir kër ñu war leen ko ñu war leen saafara war leen indil ay euh, euh, solution yoo xamante ni daf leen di dimbali ci seen dundin noonu la amee ci yeneen gox yi nekk ci réew mi boo demee fële ci Matam dafa am ngelaw lu metti lu fa ñëwoon am tamit taw bu métti métti bu fa ñëwoon fan yi ngelaw li euh, yàq fa ay kër yu bëri am ñoo xamante ni seen néeg euh, pind yi dañu naaw muy zang yi am ñoo xam ni seen jur daf ci loru démb président yónnee ko foofu mu dem taxaw leen jàppale leen bi mu yëgee ni maa ngi ndar démb euh, pare li ma fa doon liggéey tey ci suba mu woo ma téléphone ma ne ko kon nañ daje Touba nga xamante ni léegi liggéey bi ñun ñëpp dañuy bokk ànd lépp lu ñu doon def ku nekk ci sa wàll ñu boole moyens yi boole li nga xamante ni tamit mooy service yi ñuy yëkkateendoo di defandoo ngir gën a mën a gaaw a saafara euh, li nga xamante ni moom mooy jafe-jafe yi bépp population di dund ndax taw bi wàcc wax naa ko léegi sànq bi ma nekkee ndar ci suba taw euh, xéewal la ndox xéewal la waaye dañuy mm, dégg mag ñi di faral di ñaan naan yal na ndox mi wàcc te ànd ak jàmm fi mu ne bu tawul ñëpp jaaxle te loolu jaadu na ndaxte ñu ci suñu population dañuy dund si mbay euh, ñi dëkk Touba ak ñi dëkk ci yeneen gox yi ci réew mi xam nañu li nga xamante ni moom mooy njëriñu ndox waaye léeg-léeg mu ñëw indi ay gàllankoor ci dundin wi loolu nag bokk na ci bu ndox mi ñëwee nangu ay kër mais bu ñëwee nangu ay kër lu mel ni li am fii tey Touba ci yenn quartier yi wax naa effort yi ci état bi def mais lu mel nii li am ci yenn quartier yi li ñuy def mooy yokk capacité de pompage bi li ñuy def mooy fexe ba loolu di ñuy tuddee camion hydrocureur yónnee ko fi fi nga xamante ni buñ ko pompé du ñu am fuñ ko sànni camions yi ñoo koy manque dem tuuri ko diggante démb ak léegi am na fukki camion ak juróom-ñett yoo xam ne jot nañ leen fee yónnee ndéewgul ñu tàmbali liggéey bi damay anticiper parce que gis naa ñaareelu question bi nga laaj sànq si français mooy affaire exitoire à Touba euh, wax naa ko léegi Kër Ñang moom mooy bassin bi nga xamante ni ndox Touba yëpp fa lay dajaloo bala muy jàll Darou Rahman ak di léegi loolu bi ñu seetee gis ni Touba ku ne gis na ni muy màggee mu yéeme la xam naa ku miin Touba at moo ñëw boo fi gëjee ay weer boo fi ñëwee at boo moytul di nga réer. ndaxte ni Touba di màggee la ku ne xam na tamit sancaan yi euh, ni ñu mel euh, ci tuubaa euh, dafa am sama benn xarit wëllëre bu yàgg boo xamante ni bis dañ doon waxtaan ma gis seen dëkk ñoom ñëpp toxu ñëw dëkk si Touba ma ciy waxtaan ak moom ma koy laaj ma ni ko mais lan moo tax defu leen ko benn benn wala ñaar ñaar mu ni ma sama dañu dañu toog benn bis seen maam woo leen dajale leen ñoom ñëpp ci penc bi ñu ñëw toog mu ni leen dañuy toxu jëm tuubaa léegi ñu laaj ko ni ko wàll lu ko waral mun leen sagar day jege sën ndax murit boo gis boo xaree xol bi bu génnee àdduna ñu denc ko Tuuba lay ñaan loolu moo waral euh, bi mu leen ne sagar day jege sën daf leen bëggoon wax ni ginnaaw fa la ñuy mujjee nañu teel a jege ji loolu nag dugg na ci xolu murit yëpp dugg ci xelu murit yëpp ba benn murit boo xalee xolam su sañoon du fanaan ni Tuuba mu cig dundam ak ci euh, ñàkk nekkam ci kaw suuf ba tax na gis ngeen Tuuba ni muy màggee loolu nag euh, état bi mi ngi ciy anticiper ba looloo waral fële ci Kër Kàbb ñu ngi fay aménager benn zone boo xamante ni mat na quarante à soixante hectares boo xamante ni lu mel nii am pof di am Daaru Rahman waaye mu gën a yaatu gën a mën a am capacité ndox bi loolu la ñuy euh, nekk di liggéey mais loolu ci projet structurant yi te suma collègue ministre de l'eau et de l'assainissement moom moo ko yor en charge mais dans l'urgence mooy génne ndox mi ngir fexe ba ñëpp seen màggal yéwén ñu yegg ci màggalu jàmm euh, def ko jam def ko ci jam niñ ko daan defee at mu jot ndax màggal ku ne xam